ce mercredi 27 janvier 2021, le ministère de la Santé et l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1698 tests réalisés, 280 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,49%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 87 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 193 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. à Thiès, 16 à Kaolack, 10 8 à Touba 7 à Ouest Foire 6 à Yoff 5 à Tamba et Tivaouane 4 à Dakar Plateau Khombol Liberté 6 Mariste Mbour et Sacré-Cœur 3 3 à Darou Grand Dakar Kaffrine Keur et Popenguine 2 à Bakel Grand Yoff Guinguinéo HLM 6 Matam Médina Ngaparou Nord Foire Waguñaay Parcelles Assainies Point E Sokone et Zac Mbao 1 à Amitié Bargny Cité Aliou Sow Cité Mourtada VDN Diamaguène Diamniadio Fann Fass Mbao Gorée Guédiawaye Gueule Tapée Kanel Kër Mbay Fall Louga Malika Mamel Mexe Ngexo Ngor Nioro Petit Mbao Pikine Podor Pout Ranérou Richard Toll Saly Sangalkam Saint-Louis Sicap Baobab Sicap Rydwiis Sindia Thiaroye Yeumbeul et Zone B 255 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris charge dans les services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 26 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 407 cas ont été positifs donc mille cent dont 21 125 guéris, 601 décédés et 3 680 sous traitement. tey bésu àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier atum 2021 ministère bi ñu dënk wér gu yaram askan gi jot na résultat examen virologique yi may waaju lim ci junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett test yi ñu jot a def ñaar ak juróom-ñett fukk ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñooy cas contact maanaam ñu jasoo jaxasoo woon ak ñi amewoon doomu jàngoro bi amul benn cas importé téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñooy ka issu de la transmission communautaire maanaam ñu jax ñoo xam ne jot nañu feebar bi te xamuñu fu ñu ko jële ci ñooñu ñaar fukk ak juróom-benn lañu nemmeeku ca Thiès fukk juróom-benn ca Kaolack fukk ca Wakaam juróom-ñeent ca Rufisque juróom-ñett ca Touba juróom-ñaar ca Ouest Foire juróom-benn ca Yoff juróom ca Tamba ak Tivaouane ñeent ca Dakar Plateau. Khombole Liberté 6 Mariste Mbour ak Sacré-Cœur ñett ca Daaru Musti Grand Dakar Kaffrine Kër Massar ak Popenguine ñaar ca Bakel Grand Yoff Guinguinéo HLM 6 Matam Médina Ngaparou Nord Foire Waagu Ñaay Parcelles Assainies Point E Sokone ak Zac Mbao benn ca Amitié Bargny Biscuiterie cité Alioune Sow cité Mourtada VDN jàmm gën jam ñaajo Fann Fass Mbao Gorée Guédiawaye Gueule Tapée Kanel Louga Malika Mamel Mexe Ngexo Ngor Nioro Petit Mbao Pikine Podor Pout Ranérou Richard Toll Saly Sangalkam Saint-Louis Sicap Baobab Sicap Rue 10 Sindia Thiaroye Yeumbeul ak zone B ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ñooñu ñu hospitalisé wér nañu bésu tey juróom fukk ak ñett malade ñoo ngi réanimation juróom-ñeenti malade ñàkk nañu seen bakkan bësu démb talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier atum 2021 ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tane ci bësu tey dalee ko ci kaabu njëkk Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak juróom ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar cas positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak benn ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom wér nañu si juróom benn téeméer ak benn ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñetti fukk ci hôpitaux yi